asalaamaaleykum wa Sénégal asalaamaaleykum monde entier maa ngi leen di nuyu ku si ne sa ak sa sant eh, man la Momo bu podé Marichou je réponds au vrai nom de Mohamed Silla j'ai 26 ans. Momo nan nga def ba nekk acteur si podé Marichou. ni ma commencé c'est en partie grâce à pot parce que pot c'est mon oncle tey bi ñu nekkee xale bon je me rappelle moom laa doon footballandool moom laa yàgg moom laa yàgg fool daan moo suis samay morom nag ñi ma rek ñu ko gisee noonu paa la de <laughs> ñu ma mag rek laa doon donc du coup bon bokk na ci ñi ma yar bon paa topp ma Je bëgg jigéen yooyu topp ci mais bon donc c'est en partie grâce à moom dañ suis def benn vidéo sur le web mu ngi doon liggéey Marodi TV après ci biir vidéo bi suis ak Khalifa le réalisateur pourtant mën nañ intégré intégrer ci série brand qui s'appelait le rêve acquis donc foofu laa joué Marichou mu ngi tudd Sophie donc ñu joué ko gars apprécié bi ñu Marichou le produit s'est installé ñu am un rôle Pod ma rôle bi gars ok pourquoi pas te fofu sax bo xoolaatee benen Momo mo fa nek donc tay mën naa ne sama expérience ak Marodi j'ai incarné trois types de Momo donc loolu non yeb ci samay facette la 4 quatrième personnalité bu ñëwoon tam mu dóor ko cinquième personnalité bu ñëwoon mu dóor ko parce que c'est comme ça qu'on se développe te man l'ol lay ñaan yalla sax tay bu la ma sax ma am ay 17 facettes yooyu noonu. ñu bari nan la da nga mën sa rôle da nga waane trop est-ce que da nga da nga jàng cinéma wala jàngoo ko. Euh, bon cinéma autodidacte laa ci parce que depuis ma nekkee xale laa bëgg affaire de film affaire de yooyu noonu tête teel a bàyyi Mickey nag donc du coup à chaque fois surtout ay ñoom Steven Seagal jamonoy Nico yooyu noonu yëpp gars yi bu ñu defee benn scène film bu jeexee je les reprends depuis petit bon je faisais un truc boo xam ne man sax xaw ma ko moy tout le temps dama doon taxaw ci setu bi di reprendre yenn parti yenn acteur yi ak affaire yu demee noonu donc noonu laa dem di màgg di màgg di màgg ba après ma gis ne que ay professionnels ci seetu la ñuy entraîné wu donc je me suis dit waaw peut-être que benn yoon la boo xamante ne dañ ma ko jagleeloon depuis ma nekkee xale. ñu ñëw tuuti ci sa dernière scène bi nga def récemment ci épisode bu mujj bi mu suscité benn coow bu bëri benn polémique sa scène yow ak Elena mu choqué ñu bëri noo ko euh lolou dama ne duma ci tontu parce que c'est accorder de l'importance à ce qui ne l'est pas quoi surtout suma ma réaction yenn Donc, si vous mënoon jàll ci mais dafa melni sen scène bi dafa la neex trop quoi. boy bi tëdd sa kaw nga kott ko ngay sentir plaisir. gis nga ce qui fait ma particularité mooy que su may jouer suma ma xasee action li may joué foofu noonu yëpp tey dañ ma ne Elena bon sa gel la quoi entre guillemets donc su ma xasee su ñu xasee ba action C'est comme si sama gel laa toogal donc mooy waral liberté boobu noonu mais tey Sénégal su ma gisee par exemple ñoo xamante ne ñu ngi koy critiquer parce que je reçois des insultes surtout sur du ma citer ay tour du ma citer ay groupe aussi mais y a des insultes man je me dis juste bu fekkente ne lii ça a su choquer bu fekkente ne li ñu def parce que ba tey bon gars yi ils présument que dañu fóonante ba tey kenn gisul ku fóonante bu fekkente ne li ñu def nii nii rek dañ ciy am mu choqué nit ñi wala mu am ñu mu touché donc billahi Sénégal war nañ xoolaat suñu bopp. ci naka parce que li ñu wane nii nii cette série se veut être le reflet de la société sénégalaise lii xew ci dëkk bi rek la ñu nekk di wane gisoon nañ fi depuis saison un trafic ndaw Marichou banditisme ma la passion de Chabi etc. etc. il y a beaucoup de thèmes qui se sont développés de la saison 1 à la deuxième saison donc vous thème comme tant d'autres hein. parce que je ne Vous est-ce que man on est tous pareils qu'on se voile pas la face donc vous ko c'est parce que vous fi am sañu amu fi

loolu ñëpp xamee nañ moom. c'est que da nga nduroo le couple soo quoi. waaw day am l'apparence est souvent trompeuse loolu la tubaab bi di wax. d'accord léegi nga nekk célébrité nga nekk star ñu bëri xàmmee la est-ce que doo jot ay appel jigéen ñi topp nañ la waaw wala déet. je reçois des tonnes d'encouragement dinaa jot ay encouragement yu bëri et au passage maa ngi nuyu waa Tim Momo gars yi ne nañ Tim Momo moom bëri na jigéen mais bon man dama leen ñoom comme des frères et sœurs comme des sœurs Team Momo maa ngi leen nuyu au passage parce que bokk nañ ci ñi nga xam ne tey fu nga xam ne maa ngi xaw a dute sax ñu ngi fi les encouragements je reçois des tonnes d'encouragements..! je reçois des tonnes d'inbox..! je reçois des tonnes de messages mais loolu noonu yëpp sant yàlla la rek sant yàlla la. mais est-ce que Momo est prêt à tout jouer sur cette série là quoi pare nga pour def loolu laaj nga def ko gis nga dafa am benn événement bu ma demoon temps yi nii ñu ne ma ma dégg fa benn wax boo xamante ne ma touché mooy artiste dafa war reconnaissant aujourd'hui j'ai l'habitude de dire que Momo n'existe pas Marodi TV moo am je suis très reconnaissant pour Marodi xam naa fi ma leen am na fu ma leen teg xam naa fi ma teg tey man lépp lu ñu ma teg ci yoon ne ma lii nii la c'est parce que bëggaluñ ma lu bon donc buñ ñu ma nee nii nga ko war a c'est parce que noonu laa ko war donc je suis prêt à me donner à 200%.. sur scène parce que ñaar dama ko bëgg parce que ñi ma bëgg laa ñoo may encadré. ñu ñëw tuuti ci sa vie de couple est-ce que Momo est en couple ou bien dafa pas..! <laughs> non Momo est en couple nag. tey jii boo doon takk jabar. Mhm. da ngay bëgg a takk jabar bu mel ne Elena wala Kiné. kenn si ñoom ñaar. ah amul benn jigéen ci film bi muy keneen ak keneen blague à part amul benn jigéen ci film bi boo xam te nekk na sama stylu jabar j'ai un style très particulier des fois dañ naan dama compliqué samay ex mais quand même j'ai mon style à moi qui m'est propre et j'adore ça mais si vous rek ñoom ñaar ci série bi kan nga ci vous à l'aise si ñoom ñaar pour dire vrai Kiné Kiné Qui est à l'aise parce que Tay, amna na lenn loo dañ ko Kiné on a été à l'ISM avant même si on s'était pas connu avant mais depuis buñ duggé ci série bi amna ben complicité bu am ci ñun Elena elle est venue ci deuxième saison bi mais j'ai fait 48 épisodes un an de tournage avec Kiné on était tout le temps ensemble et cetera donc c'est forcément que link bi foofu le gën a mën mais comme je dis tey bu ma nee Elena nga wara gëna nekkal à l'aise bu ñu action Elena lay gëna nekkal à l'aise bu ñu ma nee Kiné nga wara gëna nekkal à l'aise mom la nekkal à l'aise ki gëna ñaaw ci Sénégal buñ mako ma né ma da ngay jouer ak mom, ma jouer ak mom ba nga teg ne kii rek la nopp Té lool ma ngi ci sant Yalla, di ñaan Yalla mu xeeb cette doole doole ko bu baax internet ñu fi bari si ñom dañ lay critiquer parce que nenañ da nga naturel saison une bi mais saison deux bi da nga wané trop quoi. non mais loolu daf kii bi daf ko laaj rek rôle ba ko laaj parce que tay man critique yoy jëleewu ma ko woon gis dama doon ree parce que je me disais que dañoo habitué gul won ci changement de tempérament bi changement de rôle bi même pas changement de rôle parce que tay par exemple saison une bad boy la fa etc et cetera mais après bad boy ba bakagne bad boy a, du bad boy à vie tay ni ma nekkee woon ba nek ni c'est juste une voix bo xamante tay lolou tam ci thème série bi la bokk il n'est jamais trop tard pour changer donc instant bi ñu ngi épisode lan 19 critique yoy gisatoo ko ça veut dire c'est juste que ils avaient du mal à s'adapter à ce changement parce que c'était un sevrage brut ñew tag gis ma en costume cravate ma incarné ay Lumumba par ci et cetera je m'y attendais un peu mais instant saison 19 je dama commentaire naturel bi ñëwaat na parce qu'il commence à s'y faire tay y ñëwoon légui ma bad boy naturel Momo sa jabar yan caractère la war a bëgg bëgg bu comme waaw Marichou di waxee damay yéegal di ma wàccee huitième ciel sax bu amee mu yóbbu ma <laughs> ah bëgg ma aussi comprendre ma surtout soutenir ma mais huitième ciel boobu tam j'insiste bu ma fa mënee yóbbu na ma fay yóbbu. Momo sera gam ou polygame. <laughs> débat bu ñuy wax daal je vais signer la polygamie. C'est mom, à coup sûr amul amul digen, am ma signer je vais signer la polygamie mais vous que que jabar la am ak jabar tout dépend de sama jabar li may defal. léegi ñu ñëw tout ces activé yenen yo xamne ne ak série bi lan la. bon suñu producteur fay tam di ma togn je touche à tout et que effectivement c'est ça je touche à tout je dis que je dirais que je suis un businessman et un manager parce que bon je veux pas faire de publicité mais je gère une crêperie qui se trouve à Sacré-Cœur juste en face du Yankees Mon Crêpe and Gaufre donc je vous invite au passage à venir goûter à mes crêpes et mes gaufres en même temps je suis dans plusieurs secteurs d'activité parce qu'au fait même si ça m'a dit j'ai touché à tout j'ai fait de la comptabilité gestion j'ai fait la management marketing commerce international donc comme je ma dit di je bëggoon je suis bëggoon xam lépp lépp dañ kumba business des fois ma am ay dilu auto. des fois c'est dans l'immobilier des fois c'est des trucs beaucoup plus serrés mais rien d'illicite lan mooy am monsieur bon on a l'habitude de me Ça du de boppam faute.. mais on a l'habitude de me dire que je suis très ambitieux parce que même si li may jouer tout le temps bu que bad boy bi bad boy c'est avec da nga ciy gis samay ambition y ma yàgg suivre moom question bi man balaa ma ciy ton sax mën na ko tontu man sama ambition lenn la doon milliardaire et par tous les moyens naa fa yegg milliards yi moom faw ma laajte te moo tax may job moo tax may def li may def nii yëpp te lépp lu ma dugg loo xamante ne amul xaalis ah doo ma ci gis deuxième jour dem leneen rek. lan mooy sa kàddu bu mujj. sama kàddu bu mujj c'est plutôt à la jeunesse parce que nous devons être conscients que.

fais-le avec conviction c'est la conviction moo lay may li nga bëgg li ngay def nga fulaal ko yok jom job non lañuy def ba nga xamné dinañ bay yenn affaire yu sew yi nga xamné on s'attarde là-dessus ay fóon na ko fóonu kaak c'est des choses yo xamantene ça passe tay on ñaata épisode la dina dem ba ay quarante huit cinquante qui sait donc l'idée day passé yeneen mais après ça dañ koy fàtte la ñuy xool mooy li nga a def ak fi nga jëm ak yoon bi nga emprunté ñun une voie boo xam conséquences bu sax carrément ah on l'a choisi maa ngi leen remercier di remercier Sénégal bi bon su ma du ma Sénégal monde entier man personnellement diaspora bi ñoo quoi parce que diaspora bi ñoom ñëpp ñëpp macha ñu ngi série bi au passage waa Italie Angleterre Espagne mention spéciale encore à Tim Momo Tim Momo c'est des gens yoo ils sont là pour moi il me console des fois. Des fois, surtout sur Snap. Je suis plus actif sur Snap Sur Snap, je suis ma affaire sur ma vie wala affaire de des fois je tooñ leen Je laay tontu nag sur Snap. donc il y a une réactivité donc on est comme une famille des fois ça gars yi ñu message ne ci team au fait la team n'existe même pas mais c'est juste que c'est un mouvement de soutien parce que li ñuy la dafa famille acting bi dafa metti des journées de tournage ngay ou ay deux trois jours yo tu tournes du matin au soir juste pour bëggal leen dafa metti on a besoin de soutien on a besoin de critiques objectives on a besoin de gens qui ont ne un bu ci dañuy ne ci mais pas ci juste comme ça lolu lañu que soxla parce que ça quoi qu'on dise on est en train d'exporter le Sénégal on est en train d'exporter le Sénégal aux yeux du monde parce que tey boo demee ba ay chinois di ans série bi ay japonais et cetera et cetera à cause des sous-titres di ci intéressé wu di ci dugg di rattraper ay saison une donc ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose de magnifique donc ngir le rek si le rek man damay ñaan Sénégal bi ñun ñëpp ñu jàppoo booloo jàppale ñu ñu dem ndax ñun dañoo bëgg dem képp ki nga xam ne da nga jug pour tardé ñu dama la ko ñaan togal xaar ñu bu ñu ñëwee wax la fële nu mu mel. loolu laa amoon lu ma wax wasalaam aleykum